Sarr lan nga ñu mën a wax euh, si suñu njiitu réew mi Macky Sall parce que mu ngi fal woon euh, le 25 mars 2012 euh, tey la 25 mars 2022. tey la fay am fukki at lañ nga ñu mën a wax ci moom côté positif wala côté négatif. waaw di wax Macky Sall président de la République du Sénégal waaw wax dëgg yàlla moom mi góor góoru de waaw xam nga ne président mi continuité la da ngay def bay bi sa morom ñëw yeggale sa morom sa morom ñëw yeggale comme noonu la rek moom bu defee bay bi. kenn kuy ñëw ku mën di tool bu liggéey tamit na liggéey comme lu ëpp lu fi Macky Sall liggéey rek loolu la di féliciter Macky Sall tamit di ko wax moom wax dëgg yàlla mi ngi liggéey de. mais benn côté su ma waxee dina wax ci sur un Sénégalais pur et simple Macky Sall c'est un président boo xam ne président bu nekk bu bu bu mën liggéey la président la boo xam ne Sénégalais yi xamuñu Macky Sall tey mais dinañ ko xam bu fi bu fi jugee la ñuy xam kan moo nekkoon Macky Sall ndax ala kulli fi jugee gis nañ li mu liggéey ci réew mi Wolof Njaay danaan mag mu taxaw ne gisuma asamaan mënoo si taxaw mënoo si dara ndax gisul asamaan mais li mu liggéey ci réew mi ñu bari gis nañ ko loolu ay réalisation la yoo xam ne jëlee na Sénégal si benn point yóbbuwaat ko ci beneen point loolu côté bu baax la côté négatif bi nag moom mooy lu ko xam ne moom mooy entourage am dëgg dëgg dëgg na leen gën a xool ndax di nga ànd ak nit fekk sa noonu la te fekk defalu la da lay yàqal lu lay yàqal rek lay wër léegi nag lu am dañ la siy yow defoo yëgoo tinoo Macky Sall daal li ma mën a wax daal ci moom mooy moom xam na lim liggéey Sénégal tey jii bilan ay militant ak ay àndandoom ak ay sympathisant am nañ ko jéem a teg ko sur la table sénégalais yi xam ko ndax Sénégal dafa dañoo nekk benn peuple boo xam ne lu njëkk toog toog seen nopp lañu xam la majeure partie ñu si bari bëgg nañ Macky Sall mais mënuñoo am les informations ci Macky Sall mënuñoo xam carrément Macky Sall lan la liggéey tey jii tamit am na ay opposants opposants yi fi nekk tamit ñoom it seen rôle la ñuy def. dañuy opposé wu ñu bëgg tamit lu baax ñu koy wax si lu jëm ci ki nga xam ne moo fi nekk mais nag man dama jàpp ne loolu du opposant opposant da nga war a mën a taxaw bu baaxee nga ne baax na su bonee nga taxaw tamit critiquer ko mais max Sall daal lu ñu mën a wax daal moom doy mooy si 10 ans yi mu def Sénégal jëlee na Sénégal d'un point yóbbuwaat ko si beneen point loolu nag su négatifé ak su positifé askan bi ñoom ñoo si jugé dinañ xam tamit mais man de mon point de vue man jàpp naa ne Macky Sall il mérite d'être le président de de de la République du Sénégal waaw. Euh, Moustapha ñu ngi lay jaajëf. waaw jaajëf naa la jaajëfal naa leen bu wéer a wéer